parti Pastef ak leader bu Pastef lu ne dégg nañ ko ci réewum Sénégal lu dul Ousmane Sonko wasin lu bon lu nekk yëkkati nañ ko ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci deram fexe nañ ñoom ñi nga xam dañoo féete ci presse bi waroon tëddee njaaxaanaay waroon ñu jox ay xibaar yu leer te wóor ñoom ci boppam ànd nañu booloo takku ngir xeex pastif ginnaaw bi Macky Sall jëlee dogal ngir di dissoudre parti bi ñuy wax Pastef bañ lànk ne pastif du bokk ci élection 2024 yi leaderam du bokk waaye ku jege ci leaderam sax du bokk loolee nag dafa mel ne dogal boobu antuwul la ñu yéene woon Pastef ñoom journaliste alimentaire yi ak seen xol bu bon bi nga xamante ne njortoon nañ ne Ousmane sunku bu bokk ci ñi nga xamante ne dina yilif Sénégal tey jii basi Diomaye Diakhar Faye ginnaaw bi ko Ousmane Sonko joxañee jël na ndam li doon cinquième président du Sénégal waaye joxaan na ndam li kii di président Ousmane Sonko mu jiite gouvernement bu Sénégal mbokk yi teewlu seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu dégtal leen audio bi nga xamante ne ci audio yu bon yi ci la bokk waaye nag fàtte xam jërë ngeen jëf bàmmeel bi ñu na ko gas tabax ko bakara ko teg ci xëtamu njëkk teg ci bi dane fii la ñu suul Pastef les éco nañu bés bu ñuul kukku la patriote yi dund démb ci ji ne Ousmane Sonko mi jiite parti bi mandat dépôt nañu ko ba ma nga ca kaso ba Pastef effacé nañu moom Ousmane Sonko mandat dépôt nañu ko parti bi di Pastef tas nañu ko soleil national nañu Ousmane Sonko mi ngi dund ñaari jur jàng doyen des juges Omar Maham léegi lu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne préférée seen njëriñ TV kàddu yooyu di kaddu yi Mamadou Ndiaye nga xam ne bokk ci ñiy def revue de presse fële ca TFM ca rajo RFM gis ngeen na muy waxee ak cawarte ga mu am ci takkal tuumaal li nga xamante ne moom moom xam ne ne du dëgg ña ko jox soleil bi wala ñu ko bind xam nañ ne dara du ci dëgg waaye tey ji yàlla mi dara tawul may na ndam Ousmane Sonko Sénégal am na ndam dëgg la Bassirou Diomaye Diakhar Faye fal nañ ko mu doon cinquième président du Sénégal am na souragement bu tuuti boo xam ne amagum nañ ko gagné nañ benn bataille waaye guerre bi moo des ndax ñoom ñii ci boppam ñooy ñi nga xamante ne seen bakkan lañuy teg ci nguur gii fi nekk ngir bëgg leen yàqal ngir rek bañ a fay lempo xam nañ ne jamono ji ñi jiite Sénégal ña nekk ci biir palais wàllum suuf wàllum fiscalité wàllum fayum impôt loole ci boppam seen bakkan lañ ciy teg. lu bon lu ñuy wax usmaan Sonko seen ceeb kese yi doon niin ak la ñu bon bëgg ci état bu Sénégal moo waraloon ñu doon yàq der waaye li ñuy wax dara lañ ci gëmul Sénégal nag ci nguuru ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye di cinquième président du Sénégal lañ ko fale du lenn lu dul mu fexe rek ba ñëpp tolloo benn dayoo donte sax lépp mun ta jag waaye nag mu jéem a jagal mayaat doole ñi ndóol ak baadoole yi nga xamante ne saa su nekk seen rangooñ mooy siim cër yi buur loolee nag war fee jóge ñu dooleel baykat yi marchand ambulant pétrole bii door a génn nga xam ne fi ak mai ak juillet dinañ ko jéem dinañ ko mën a jëfandikoo du moins ñu fexe ba Sénégal gis boppam ci lépp loo nga xamante ne dañ ko doon jël di ñu ko nëbb ci alal ci corruption ci guerre yi nga xamante ne ñoom ñi fare ci nguur gi dañ daan beral seen bopp lépp loo nga xamante ne askanu Sénégal la alal ji ñu doon pàccoo di ko séddoo ñu fexe rek ba kenn ku ci nekk fa nga nekk nga gis sa bopp sa réewum Sénégal ba doo soxla ti dem feneen loolu mooy débat bi xeex bi ak waxante bi ak waxante lu ñaaw bi loolu lépp ci boppam waruñu ko tal la ñu war a tal mooy fexe ba ñu doon sàcc ñu téye seen loxo la ñu sàccoon di jéem ko rawale ñu indiwaat ko ci réewum Sénégal ña nga xam ne defoon nañ lu dul yoon ñu fexe yoon def yoonam.